seen revue de presse. El sinistre yi day ba léegi ne la ñi nga xam ne ñoo loru ca wàllu mbënd mais sonn nañu lool le pays au ne yorin gi nga xam ne kon ñi ngi ko yor nag ci li nga xam ne moom la ñuy dimbalee kon sinistre yoo yee wàllub ndimbal ga waaw am nañu ay xabaar yoo xam ne kon jot nañu ko ay fan a ngi am na ci ay nit ñoo xam ne kon ay kilifa la ñu nekk ci nguur gi ña cay def ay jëf yoo xam ne kon rafetul daa maanaam kon jël lekk googee ak alal ji nga xam ne kon s ñoo ko moom di ko jox daal seen clientèle politique ba maanaam yi marte itaali maa la wax lii ngir wane rek parce que am na ci koo xam ne day xelal kon président Macky Sall ab conseiller la waaw moom daal daa bàyyi ba guddi jot mu jël lu ci tolloo juróom fukk ci ay saaku ceeb ak ay yére yóbbul ko ASC maanaam équipe bu nawetaanam ba coow la kon jugee la yeneen ASC kon daal di jug laaj nag seen wàllu kon ca mbir ma le ne lan mooy ndayu ay kilifa yoo xam ne dañoo nekk fa ñuy nasee ko nocci maanaam ca nguur ga waaw di def jëf ju bon nga xam ne mooy la nga xam ne moom la sinistré kon war a dundee ci diwaanu Ndakaaru gii banlieue mi di ko jël kon di ko jox seen militant ya député Waré Sarr ci tribune yéene moo tax ba Macky Sall ci boppam mi nga xam ne mooy ndeyu mbili gi waxul lan la dimbalee kon ñii di sinistré yi Macky Sall lan la leen dimbalee daa wax dañ koo xam waree saar yemu ca ndaxte nee na ana premier ministre bi Abdoul Mbaye ana ministre yi ana directeur généraux yi nga xam ne kon Macky Sall moo leen fal lan la ñu dimbalee kon sinistré yi kenn déggu leen waree saar ne Macky Sall ak gàngooram le ñoo waroon na kon joxe la bon exemple bala ngay santaane sangu day fekk ngay ragu ba nuppi wax ca loolee ba pare le populaire ne sénat boobu waxtoom yu mujj kon lay dund ndax congrès bi tey ji la koy jébbal moom moom Sénat ba le pays ne Macky Sall day kon ci pangolu siin ya ak maam ministre yoo yee ngir congrès daal di fii jëlee kon Sénat ba lu ko mooy Macky Sall kon ca référendum la jëm maanaam kon ab élection laaj askan wi ba xam d'accord ngeen Sénat bi jóge fi waa wala déet te bu ay milliards yi milliards dana ko ca def Omar Sarr bu parti démocratique sénégalais ci la quotidien yéen a ne tas bi nga xam ne kon ñu ngi koy tas Sénat bi mënul indi dërëmu Mali économiser wul dara lu dul benn milliard ak genn wàllu kon ci at mile yow lu ëpp daanaka juróom fukki at danañu ko dajaleel inondation yii ngir saafara kon mën cee ñëw lu ëpp juróom fukki at laa wax Modou Diagne Fada ne réew dañu koy pencoo kenn du ko paacoo yéene kaay ma jambal jaa ngi ne mais xoolal ma Aminata Ñaan mi nga xam ni kon Macky Sall jël na ko kon def ko ministre conseiller moom lañ dénk léegi wàllum inondation yi i maa la wax li de te Aminata Ñaan fal gi nga xam ni kon ko APEX loolu kon tax na ba ñu bëree bëri xam le ne aminte Ñaan boo leen gisee kon Macky Sall jël ko teg ko ci wetam nii du dara lu dul bañ kon ku ko topp ci kanamu tribunal ci kanamu yoon kese laas ne ñi nga xam ne maanaam dañoo meroon lool bari lool ci alal ju bari ji nga xam ne kon moom la nguur gi fi nekkoon kon yore woon ak ndóol gi nga xam ne kon askan wi ci boppam kon ndóoloon nañu ko lii daal moo taxoon ba Macky Sall xam le carrément ne directeur généraux yu agence yëpp ak entreprise publique yi danañu kon wàññi seen salaire yóbbu ko ba ci juróomi million gën a bëri waaye ndekete loolee Macky Sall doon wax yëpp ay affaire naxaate la dara ko nekku ca dëgg ba dara booloo jeex parce que xoolal ma ARTP ay ngandi salaire fa ne laas ne président du conseil de régulation des télécommunications ah fukki millions ak ñeent kon lay fayeku allahu akbar quatorze millions bu ARTP di Thierno Alassane Sall lu ci dooloo fukk ak ñeent ci ay millions la waa ji kon di fayeku allahu akbar laa ilaha illa allah quatorze lay fayeku ma ne membre ya nekk Bamba enquête yéene kay ne président directeur général bu MTL nee na mes ni menteng dem na kon ca Dubaay daw na de ginnaaw ba mu fi daal ab chèque woo xam ne benn milliard la te ndekete kon chèque ba baaxul dërëm kon nekku ca Moustapha Yacine Gueye moom mais eh, daa am ñu koy aar ak di ko nëbb de ma ni la Macky Sall mi le ay jafe-jafe laa lay wax nii lay am un le pays au quotidien ne te du Macky Sall ci boppam moo fi digle woon xamle woon it ne liggéeykat yi rawatina kon syndicaliste yii impôt bi nga xam ne maanaam dañu koy ronk ci seenug salaire googu dana ko ji fonds monétaire international nee na ñett loolee kon Macky Sall wax du fi am tey te du fi am ëllëg eewaay eh Samba tubaab yi yemuñ parce que sàkku nañu ci Macky Sall ak nguuram ji le ndimbal gi nga xam ne kon waroon nañ koy def ci wàllum courant bi ngir mu oyof kon ci askan wi le nañu ko dindi ah i maa la wax lii xamal nañ Macky Sall ne ko dama ne ndimbal li nga xam ne da nga koo war kon di def ci courant bii dootoo ko ci def ñun tubaab yi ñoo la ko wax te eh naa ne kon askan wi dana leen weex xaat moo tax a Sall fi mu nekk nii dañoo mer ba bëgg a dee te Macky Sall ci boppam war naa yëg ne ànd dooleel APR bu El Hadji Ousmane mer nañu kon ba futtu parce que gaañoo ñee jàpp nañu ne Macky Sall kat fii la nekk di jéem a neexal ñi nga xam ne as comp lañ ko dimbale wala sax jotuñu ko woon dimbale ci wàllum élection nga mbile Macky Sall daal mel ni kon ñu fàtte nit ñi nga xam ne maanaam ñoo àndoon moom ak doon ko dimbale kon ni démb genn wàllu alpulaar yëpp nekk Sall ci matériel jàppale nañ Macky Sall kon ci xaalis ñooñeen ñëpp Macky Sall kon dalee na sappe faalewu leen kon dimbaliwu leen xaritu tayam yi rek réew mi quotidien ne ñii dee boo sàgganee danañu doon kon ay xaritu tayam Ahmed Bassir Kounta boo sàgganee mu dem APR Charles Mendy boo sàgganee mu dem APR Maxime Diagne boo sàgganee mu dem APR Wuli Ndiaye bu Fatick mbaa du ñuy kon ca APR gee leen jëm Macky Sall ma jëmoon Mauritanie nag digganteem ak Yaya Jammeh libération yéen a kay ne Ould Aziz njiital Mauritanie jubóole na leen ki kenn mënul jubóole kay ak askan wi mooy Manga Sarr laas tey ma xamal leen kan moo rey Rokhaya Diallo mile ba pare kon def ko jëf ju bon jax saajo Manga Sarr la toll ci ñaar fukki ak juróom-ñaar ma ne ci diggante daanaka lu mooy ñaar fukki fan waaw waa ji ma ne la tëddee na fi lu ci tolo ñett ci ay na yoo xam ne ëppal nañ ñeen fukki at diggante le 3 le 10 ak le 14 ci weer wii nga xam ni kon moom la ñu ne allahu akbar tribune yéene kaay ne Manga Sarr moomee ñaar kon ak juróom-ñaar la am moom daal jigéen xam ne ëppal nañ juróom fukki at rek ñooñu kese la soxla ci lëndëm gi daal lay yëngu ak kër yi nga xam ni kon kenn dëkku fa manga saa daf lay xos ngir bañ kon nga yuuxu ca kaw caaxaanee na tëddee na kon ay jigéen yu baree bari yoo xam ne dañoo nangu ngir bañ kon waa ji rey leen jël seen bakkan allahu akbar <laughs> alaaji nopp dallooti na jaaxleeti na manga saa kay man lim ci taamoo ñi ëppal juróom fukki at kese moo ma jaaxal cinquante ans du dem jéem a takk ci gone yi nga xam ne foccee koogul wala seeti ñi nga xam ne ministère de la joie la ñuy yëngu waaye taamu ab mag moo xam ne yow ëpp ëppal na juróom fukki at looloo ma jaaxal